nuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan ma xew ci réew mi sunu gaal gi yëgle gi ne laas si ba gi ne te nu jàppoon ko am na moroom ci wàllum njuuj njaaj naxaate yëgle kaay gi ne am na geneen sëriñ goo xamante ni def na lu nu mel moom charlatan bi la day gi ne Cheikh Bara Ñaan lay wuyo ñu gën koo xam ci def gis moom day këmu mu dóor ab sénégalais la bu nekk ca États-Unis moom la teg dil dey nax ko ba lekk ay kopparam lii fii de la réew mi toll yëgle kaay gi am na benn bébé boo xamante ni juróom-ñeenti weer la am na ci accident de ci réew réew sunu gaal de yëgle kaay gi ne diggante si te kër góor gi ba ca tribunal ba démb ko fa dem da ngay yaakaar ni ab film prison moo fa am laa wax démb kay yëgle gi ne ci projet Mame Mbaye Niang gi ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw ganu demee wuy ji ba keroog ni Ousmane Sonko di àggee ci këram tar la def métti waay waay laata mu yegg ca tribunal ba sax yëglekaay gi ne jot naa fëgg wata dóor ca kàppoot ba ni wata bu weex bii du nu topp moom koy Ousmane Sonko démb dem beeg dikk bi lépp fitna la maa la ko wax de xeer yi dàqee gaz lacrymogène yi mel ni la wax ñu demee dema ni fii la ñuy jaar di jaar ga tàmbali tëtëtët libération à domicile la mujjee dem moom Ousmane Sonko yëglekaay gi ne danoo toj wata ba weer gi nga xamante fa lay tooge kay yëglekaay gi ne daal ko coppet génne moom Ousmane Sonko dugal ci seen wata ñoom takk der moom Ousmane Sonko nag ma nga naan agsi nañu ci ligne rouge bi laa la wax amatul dellu ginnaaw lu ci am ba des daal moo di seen procès gi bu fekkee mooy ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko bañan bokk ci élection yi ñu jëm na waaj te xam ne kon du ci bokk lépp fu yëglekaay ni ma Sonko koy démb sonal nanu ko de violente nañ ko ba pare sakkestre ko ca këram ginnaaw ba nu tojee vitre oto ba yëglekaay gi ne ak moom ba këram ni nu ko jëpp ni ko dugal turbine yëgle kaay ma moom koy police yi laa la wax dañoo s'acharné ci ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko force ko génne ko par force wata bi enquête yëgle dikk ak ñun ci avocat yi Ousmane yi ana naka def ba am li nga xamante moom moo di renvoyé dàq procès gi lu ci am ba des daal waa Pastef yi moom mer ba futt la def les échos yëgle ni ma bëgg ngaa dégg dëgg journée ca bët ba la ki ci des ci ay parti intime maanaam ci sacré mooy yow kii lor nañ ko di Abdoulaye Sow nga mer di namañ Sonko léegi sa ko yëgle kaay ne ma ma nga naa ko Sonko ci jëmi boppam gën a rëy ci askanu sunu gaal ñu ngi koy joog a nemmeeku te mooma libération yëgle kaay ne ma ak lu man da xew day moom Sonko doon koo gaase ba nëpp forcé ko ñibbi ubbi libération ba mu ñibbee day toog tuuti ne day dem ca la nga xamante ni moo di conférence de presse ba wópp loowu dañu ko visé laa la wax tiire ko ay grenade lacrymogène ndax ka di ko xaar xaar guddi sax revue de presse di jour ko xamle café balaa neex saf jar mi quotidien yëgle kaay ne ma kay daanaka at sënk ma ca des wal fajri quotidien yëgle kaay ne ma démb kay li xew ci Ousmane Sonko violence inouïe contre Sonko dëgg lees lees ko dippee wax na ci génne gin ko génne ci wataam wiitir bana toj yëgle kaay gi ne yóbbu gin ko yóbbu këram ba muy génnaat nan ko gaasee mambay ma ko doon xaar ca tribunal ba mu indil ma rapport waaye xam nga lan la indee ay mystique ay xonjam ay giri-giri pour tiitloon nit ñi Ousmane Sonko day moo leen gën a xam ni faaw mu indil ma rapport mbaa mu tëdd ci kaso bi pare nag naa njiitum réew mi président Macky Sall sax bu ma waxoon ne naa bàyyi plainte bi bàyyi gouvernement génn ci moom a gënal ma bàyyi bi démb ba metti sax ci journaliste yi am na ñun ci jàpp ca buntu kër Ousmane Sonko ci filmé gi ñu doon filmé nu tere leen nu bañ loolu de lan leen jàpp image yi leen jàppe ma ngay wuyoo ci turu image compromettante lu ci am ba des daal yëgle kaay gi di laas nee ma force de l'ordre yi day démb dañoo dicté seen loi Sonko ni ko li ngay def par force waa Benno Bokk Yaakaar day neeñu duñu bàyyi mukk Ousmane Sonko muy taal dëkk bi lee Sonko nga naan diggante Mame Mbaye Niang Ousmane mi yëglekaay gi ne yéeme ne te doy waar le regard quotidien yëglekaay ne ma procès bi de dàq nañ ko waaye violence samp na ndëndëm mbir mi am na ay blessure am na ñu jàpp yëglekaay gi ne ci mbir mi bugaan ngay daan yëkkati ci ay kàddoom naan démocratie ci askanu sunu gaal Macky Sall brisé na ko jeex na fi ku gis nii ñu def Ousmane Sonko xam ni démocratie amatu fi l'évidence yëglekaay ne ma moo ndax njiitum réew mi président Macky Sall nekkul ci tànki Wade bi gis ko yi nga xamante ni moom lay arrêté amee fan yi lee waaye digganteem ak société civile nag yëgle gi ne la jël le point yëgle kaay taxaw def point ci li ko yëkkati yooyu la kàddu Sadio Mané lay wuyoo suñu ñaan Ndiagne Diop ma nga naa alhamdulilah maa ngi sant yàlla lii gën a am solo moo di sama lépp jaam Yankhoba Diattara ma nga xamante ni moo demoon am ci mondial bi day moonu sonal Sadio Mané ko gënal record yëgle ni ma Sadio Mané ci dalal gi mu dalal Yankhoba Diattara di jëwriñ ju ñu dénk wàllum tàggat yaram moom ma nga na je me sens moo a bien ki nga xamante ni moo di Sa Thiès yëgle gi ne kooku rëg-rëg lay wuyoo sunu làmb yëgle kaay ma rëg-rëg fi toll nii jàpp na ni moo ëppi forme Sa Thiès Mamadou Ali Ndiaye nga naan rëg-rëg fi mu toll tembe moo gën a complet Sa Thiès ci jëmi boppam dafa manqué compétition mbër daal doole kafe balaa neex saf lu ci am ba des daal doy na waar si latir bu baaxee rek bu sama clavier ñu dem ba a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàggeen jëf jërë ngeen jëf jàggeen jëf mbokk xarit yi jaajëfal nañ leen yéen ñëpp di leen jox seen di leen kontaane a baax a a euh, sa wàccuwaay ñu wax ci kaawteef bi tuuti waaye ji nga xamante ni moom moo jël ndaw si yóbbu ko ci àll bi daal di ko violé ba noppi daal di ko abandonné bàyyi ko fa mu nekk mbir mu yéeme te doy waar waaye yéen nag sunu réew mii nag ah nit nan la mën a defee lii nag yow tamit nag ah mais nag xel dina laaj ana lan ana lan la fa ndaw say wuti moom it ca àll ba waaw loolu xel dina ko laaj waaye nag donte danoo ànd sax ba duwoo dem ca àll ba mbir mi xew. ndaal nag nag nag nag nag kenn xamul sax nag ah bu dee ni da koo forcé mën mënee ko yóbbu ko ci àll ba def ko naka sudul noonu ba noppi wàcc ko fa ah xamoo li nga def mbir mu yéeme na te doy waar rime askanu sunu gaal gi daal lu ne lu ne lu ne rek leen fiy dégg ah kenn daa xamul nees di def rek waaye nag nag baax na waaye nag baax na Ousmane Sonko démb gis ngeen coowam li moo ko takk der yi man mënee gi fii ah toj vitre bi fii yóbbu jële fii yóbbu fee ah réew mi ne kur ah ca biñoo naa am ay blessé mu nekk mbir mu yéeme te doy waar ndeka blessé ci ci ci ci partie intime yi man yërëm naa ko man ceet tet tet tet tet tet ah fii de la réew mi toll moom daal yéema ne te doy waar mbir mi daal euh, doy naan ñun nag li mu bëgg mooy réew mi réewum jàmm la ñu soxla ak salaam mag ñu baax ñu fi nekk waaw gone yi nañu dimbali ba bu nu taal réew mi. waaye ñi war yor wàllu yoon it nan teg lépp ci yoon bu ko defee jàmm ni ñooy mi ngi noonu ayca kon nag mënul ñàkk ma daal di nuyu gars yi nga xamante ni wax dëgg yàlla am euh, commenté nañ ñëpp rek euh, képp ku nekk rek fa nga nekk ci biir réew biti réew ma fekk la fa ni la jàpp loxo daal laa nuyu ma xool ña commenté moo tax muy bëgg ngeen di commenté gars ñi ayca ma daal di nuyu bu baax a baax ji bi baax jox ko wàcc waayam Pullo maa ngi koy bégg Cheikh Omar Diop euh, bàcc ma sàmm maa ngi koy nuyu Papa Diop di nuyu Pullo di nuyu bu baax a baax maam Mansour Kébé Pablo maa koy bigi bu baax a baax Aboubacar Dabo maa ngi koy nuyu Absa Gueye euh, Modou Touré maa ngi koy nii bu baax a baax Dame Kunta ak ki nga xamante ni moom moo di Massour Kébé ak képp koo xamante ne rek yaa ngi teewlu revue de presse bi saa su nekk maa ngi lay biggee di biggee waa Pirum Ndëri waa Gosaas saint maatam Matam ba ci Kicoor fépp waaye nekk rek jox nañ la wàcc waay mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen jàmm ak salaam réew mi askan sunu gaal yàlla na fi jàmm sax faaw aljuma mubarak nañ leen di ñaanal jox leen dig daje kon mbokk yi ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askan sunu gaal café balaa neex saf jaar kon nañu naan sunu kaas café ah, jërë ngeen jëf ak jàmm salaam